waaye duñu ko nangu. waaye ma ni. Eh, DG. DG boobu moom man maa man man maa lay lànkal. directeur. Ah, mais xam nga xam xam nga lu ma jaaxal. waaw. mais euh, ci revue de presse bi. waaw. mais tey tey troisième mandat dañ koy tere rek nga wax. <laughs> mais mais mais gra xam nga xam nga dem si yàlla dubalees li mu doon def laa bañ a def ko waaw ah, dégg naa bu la dégg naa bu la ba pare waaw dañ naan ko waa mais lees lees wàcceel kii mu ne non non ay olof lañ il faut ma xaar foto photo xaar leen bañ ba eh, pare léegi nag léegi nag man nag photo ba nag laa fa bañ a xaar ba laa xaar bàyyi noonu rek man daal fi mu ne <laughs> comme comme comme li ñu waxante rek di nga amee victoire. waaw. Euh, la vie est faite de combat. mais yàlla mooy maye. waaye nit ku nekk sañ nga sabablu. ne lii war naa koo am. suñu borom li nga xam ne mooy joxe. Mm. jox na la. yàlla na nga ko muurloo. Euh, comme li ma la waxoon keroog rek. Euh, yàlla jox la kàttan. teg la ci njub. ba li nga bëgg yéene ko. Mm-hmm. nga mën ko sottal pour les populations de Guédiawaye. Mm-hmm. mais boo fàttalikoo la ma la wax ak li ma la bind. Mm-hmm. dama ne la du ci yam. viser maire. Mhm. am nga ko. Mhm. viser jël député di nga ko am. viser leneen ak leneen. Mhm. nit yow ya yemale sa bopp mais yàlla du tënk kenn. et loolu euh, moo am solo. et la ma waxoon nit gis naa ne yaa ngi ci. mooy fexe képp koo xëccoowool. nga tàllal ko loxo. liggéey ak moom parce que lenn dong moo la war a intéressé mooy victoire wu la ville de Guédiawaye mm-hmm. et bi nga waxee ne da ngay ñëw liggéey mm-hmm. j'ai dit voilà un produit de Bougane mm-hmm. parce que comprendre na ne euh, akub pal warta doon une fin en soi et li nga wax dafa am solo mhm. ñu ngay xëccool dañu leen fal ñoom mhm. mais yow da nga am liggéey mhm. liggéey boobu nga nekk nga jàpp ko ak sa fukki loxo gëm ko di ko dérouler yal na yàlla def nga am sa yëfi bopp parce que fii nga nekk sax man jàpp naa ne sa yëfi bopp nga ko jàppe parce que nii euh, ko borom téye noonu nga ko téye kon yàlla euh, na suñu borom def yéene yëpp sotti et yéen wii yàlla moo mën a woyafal mu woyafalal la ko bu baax euh, je suis très à d'en parler parce que je sais que euh, fal bi nga xam ne def nañ la ko maire bu géejawaay mhm. maire par force <laughs> muy gëm-gëm yàlla sottal ko dafa am lu am solo lu ci am mhm. parce que di nga yegg ci banaliser mhm. pas dans le sens péjoratif mais wan ñi ñuy fal ne leen dañu leen yónni sant leen ngeen war a def donc gënu leen nit ñi ëpp leen dayu nit ñi ëpp leen martaba nit ñi mmh. ëpp leen jàng nit ñi mmh. dañu leen sant mmh. population ñoo leen sant ngeen war a def bu ngeen defee baax na bu ngeen deful am nañu sañ-sañu kenn ku nekk ci ñun fekk leen fa ngeen toog jëli leen fi toog seen place def liggéey bi ñu leen waroon sant kon Euh, esprit gëm sa bopp boobu nekk ci yow nañu ko yaatal ba kenn ku nekk am gëm-gëm googu mécanicien bi marchand ambulant bi magistrat bi menuisier bi enseignant bi ku ne xam ne da nga war a participer ci luy defar Sénégal et je crois que loolu yaa ngi ci. Mhm. yal na la yàlla euh, jàppale. yàlla kattanal la ba yéen yi nga am sotti. parce que sa victoire victoire Ahmed Aidara. Hmm. victoire des médias la. Hmm. victoire Ahmed Aidara victoire Bougane Gueye hmm. la. ay nit mën nañu bokk ndey ak baay duñu bokk euh, benn ëtt. wala benn yoon bu ñu jaar. mais li am solo mooy. li ñu bëgg maak yow yëpp. Mhm. benn bëgg-bëgg bi la. mooy Sénégal mooy lu defar Sénégal. rek kese lu jëme Sénégal ci kanam. kese lu teggi jafe-jafe askan wi. kese te loolu képp ku ci participer man nga ko defal. Mhm. yow la ko defal. Mhm. sénégalais yi la ko defal. voilà. ah fas fas bu ñu xëyee jox ko ngooñ. ngoon eh. ngoon ñu jox ko repas. Eh. dañu ñaari xont yu bokkul la waaye kiy joxe ku ne da ngaa bëgg mu suur rek. Mm-hmm. absolument. Mm-hmm. kese lañ ci jublu. Mm-hmm. waaw mais président absolument. waaw mais waaw vraiment. ah ah monsieur le maire. mais mais président. Eh? waaw waaw tey tey moom tey moom comme bi may bi may xëy si rek. Eh. bi la li ma suñu waa doon wax rek daan ma waa kon di nga xëy tey moom bis bu rëy la mais. sa kàddu yi nag gën a gën na réyal nag bis bi. Mm-hmm. waaw parce que nag da nga ma fekk nag fu nekk nag. Mm-hmm. waaw mm-hmm. vraiment li si may wax Cheikh Sarr. waaw munu ma def nag dara nag lu dul ñaanal la rek. yàlla dëgëral sa taxawaay. amiin yàlla balaa amiin. xam nga même wàllum même wàllum gis-gisu politique sax saan damay damay campagne quoi. président damay dox ba ci agri nga gis ku ne ma xoolal da ngay nekk maire waaw Bougane Gueye Dany day nekk président. man yéen rek laay seetaan. nuyul ñu buggaan yéeg lii ma gëstu xool gaa yi ci ginnaaw. ndeysaan ndeysaan <laughs> ndeysaan gis nga ko. j'en ah. profite j'en profite Ahmed pour pour ah. remercier. waaw. Ah. tous les Sénégalais. Mm-hmm. Mm-hmm. amul xaaj amul seen. surtout nag ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi. Mm-hmm. et par la même occasion féliciter le travail exceptionnel de la coalition Yewwi Askan Wi. profiter également pour remercier waa Gëm sa bopp yëpp. tous les candidats de la coalition Gëm sa bopp ñi gagné ak ñi gagnéwul. oui parce que benn vainqueur rek. comme ni nga ko waxee Ahmed moo am mooy le peuple sénégalais. c'est un peuple souverain. Mhm. c'est un peuple intelligent. Mm -hmm. C'est un peuple en avance sur les personnalités politiques. Mhm. te dëkk boo ko amee. Mhm. ña nga xam ne ñoom ñoo nekk ca dëkk ba. Mhm. gën a yeewu ñi jiite dëkk ba. Mm. dëkk boobu loo cay def da ngay def attention. kon maa ngi remercier waa gëm sa bopp yëpp. sympathisant parce que gëm sa bopp amul militant sympathisant wu gëm sa bopp. les têtes de liste yu gëm sa bopp ñoom ñëpp ku ci ne def na ci dooleem def na ci alalam def na ci euh, xam-xamam parce que tey boo gisee ñoom ñu am presque deux cent vingt mille voix partout au Sénégal mm-hmm. je crois que loolu liggéey la boo xam ne mm-hmm. kenn ku nekk def na ci yéen ñii sax ku ci ne def na ci wàllam mm-hmm. muy yow tës muy dóor ku ci ne lu mu ci war a def def na ko ci muy euh, jàppale ci kaw jàppale ci suuf yàlla euh, na yàlla dooleel réew mi yàlla na yàlla sàmm Sénégal Ahmed amin amin waay président merci beaucoup yàlla na la yàlla mais président waaw mais léegi ma kii oto amet bi daa pan fii essence ci suuf wax dëgg wax dëgg. ah déet déet déet déet. mën na ci suba sax oto oto oto oto monsieur le moom mënta pan. ah léegi nag léegi nag yow nag. jëlugul fonction di léegi nag message yëpp dañ ne nag léegi ah. fi mu toll nii nag bugaan nag day jàpp ci combat bi. jëlugul ah, fonction ah déedéet. jëlugul fonction toll nii maire bi. man man man man combat bi combat bi musuma cee jóg di. waaw léegi nag continuer nag léegi nag na oto bi tàkk. en tout daal. en tout oto bi tàkk dama jaar sama loxo war président de. DG yow mosoo daw. waaw vraiment daal oto bi daal président. ñun daal ñun daal ñu ngi lay gërëm di la sant rek. waaw waaw parce que lii lii rek rek rek rek rek. dafa neex. wallaahi dafa neex. waaw lii rek dafa neex. wallaahi dafa bu doon affaire mbir mi dëgguwul ci ñun. waaw fii ak lu waaye mën a wax it yaay njiit la kilifa gi. wallaahi waaw waaw. képp koo xam ne dem na ba mu leer na ne kii moom. nekk non man man kay man kay léegi man léegi du ma kilifa gi parce que man léegi man man bàyyi naa leen ak mbir yi. <laughs> man man du ngeen ma gis du ma ñëw ci yéen xaw ma xaw la ngeen di wax. xaw ma na ngeen koy waxee. xaw ma ni ngeen koy tooge maag sénégalais yi ñoo yam waaw loolu moom dëgg la moom ci côté information moom daal Sénégal yëpp yem. ñun moom on est waaye nag waaye nag. loolu génnewu la ci nag. déedéet déedéet ndax man. Mm. ndax man man man man mënumaa doon Sénégalais yi. non c'est que loolu sax. te yow man c'est que man xam nga xam nga xam nga man li ma bëgg a wax man ñi may dompat ak. yow ñi may dompat ak di ma kaata yëpp yéen a tax. ma ni waaw. ma ne. waaw man xam nga man. ma ne mënuma wax yéen ñi. waaw yaa ngi Cheikh Sarr yéen a ma war a waxal yéen ñi. non wax dëgg. yow wax ma mission bi rek. jël ko ci suuf. alaaj dama benn message bu benn message bu benn waay envoyé léegi. waaw nee na président Bougane waaw am ngeen kilifa bu ñëw taxaw ci kawam ne ko. waaw. Ahmed Aïdara mi nga bàyyi ci rajo bi muy propagande ak di campagne. Mhm. rek wax mhm. moom. Mhm. nee na président Bougane tontu ko ni ko. xar fañ ko tëkk fa lay lekkee. waaw waaw allahu akbar loolu la ko doon demee ah yaa wax loolu de. ah ah déjà yaa ngi déglu. dégguma. ñun daal fii non Cheikh nee na. ñun daal fii la ñuy liggéey. Hmm. dafa am ko loolu Moussa wax ni la waaye yow Ameth da bàyyi sa rajo bi noonu muy wax di propagande defal boppam nangam nga ne ko am xar mu ne foo ñu ko tënk fa lay lekkee. Ah, waaw. wallaahi laa ñu ko tënk fa lay lekkee. waaw kuy kuy. ah, ah kuy fa ko tënk fa lay lekkee. te muy dëgg. <laughs> xam xam nga mooy li xam nga yenn saa yi ma wax la ku ne xam naa say dóor. <laughs> man moom man moom samay samay samay dóor moom da samay dóor moom da nga koo yàq. man moom samay samay dóor da nga koo yàq parce que man sa bureau laa doon dóoree. non ñun du ñu dóor maa yow waaw léegi waaw léegi léegi daal léegi daal kii président. waaw monsieur le maire man daal damay man daal damay ragal daal. suñu eh. gars yi jàkkaarloo woon fa gars yi naan maire baa nga ca rajo ba gars naan président ba na ko may essence eh. léegi soor na la jël ci suuf rek <laughs> waaw waaw waaw waaw. non amul amul problème yow yow yow yow yow toi tu es jeune frère. waaw waaw loolu yàlla def na ko waaye même boo nekkoon même boo nekkoon président it. wallaahi. sañ naa ñëw fekk la nga taxaw ma ne la lii laa bëgg ci yow et dir na ma ne bu ma la waxee ka def. wallaahi dëgg la. loolu day moom. yal na suñu borom. Euh, dàqal ñu seytaane. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. te sàmm la. amiin te fal gi ñu la fal. yal na la suñu borom réserver yeneeni succès. amiin mën na ko. te dañu koy ñaan mu def ko. boo ko ñaanee mu mu may la yal na la ko suñu borom defal. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. min yàlla donc donc à tout à l'heure waaw ah, merci beaucoup ok DG ma ko gisee dinaa ko jox dinaa ko jox addiye dix mille francs <laughs> suñu yaay ki ne Diouf jaaga Diouf ndeysaan ndeysaan dafa am ñaan bu mu ñaanoon bu ma ko gisee il faut ma il faut ma ñaari junni parce que fi mu nii daanaka loolu loolu la joxe comme mhm. weexal waaw waaw ah, ñaari junni yaay kat <laughs> dama dama déedéet damaa yorul maman bu poli mi ngi bu ah, baax a baax baax en tout lii moom. jox ngeen. bind ngeen bind ngeen seen page yu bopp ci histoire u Sénégal. bind ngeen seen page yu bopp ci histoire u Sénégal. waaw Bougane Gueye dafa am mouvement. waaw mujj mu nekk coalition. mu dem ci ay élection idéologie bi mu am. ay dara am mouvement. ba mu yàgg mu bokk ci benn coalition. ñaari idéologie yi nga xam ne moom lañu am. bokkul. kii xalaat jëme nii kii xalaat jëme nii élection nekk ci seen kanam. Ah ki nekk dem battre campagne. Mhm. ñu ñibbi si mi nekk employé bu Bougane. gañe meereem. Mhm. Bougane gañewul élection mu doon def. ñu retrouver waat ñoom ñaar même nañu daan tooñantee même lu ñu seqoon Ameth joxaat beneen leçon waa Sénégal mhm. da ngay nekk am mandat électif mais bu mu lay yàqal sa liggéey bi nga doon def ñu c'est-à-dire que lii euh, dafa dafa dafa jox ay leçon Sénégalais yu bëri mooy li ma doon wax benn jour mhm. man i mani i boo demee ci chaine française yi dafa am ay émission wala ci chaîne YouTube yi ñuy wax motivation. Mhm. muy nit ki nan lay tabaxee personnel li ñuy wax développement i personnel. i mhm. mani ay dara xëy na mën na ump ñu bëri mais man mi doon nekk ak moom. Mhm. depuis xam nga Ahmed tase wuñu fii RFM. donc depuis deux mille cinq wala deux mille six yooyu. genre yooyu. ba léegi xam naa kon nu mu créer mouvement bi. lan la commencé woon ñu def journal bu nekk mu tëdd ci studio bi di wax téléphone am def nii def nii ndank ndànk ndank ndànk sept ans de combat. dem ba élection yi des ñetti at mu dem inscrire IAM di jàngi. pour am diplôme bu mag bu koy permettre ëllëg mu mën a yor li ñu ko dénk. Mhm. dem jàngi. donc am na confiance ci fi mu jëm. Mhm. am na motivation ci fi mu jëm. di tabax personnalité Euh, wax naa ko benn kilifa barki dem ma ne man toog naa ak Ahmed maa ngi moom ñu dem suñu benn grand may ñu xaalis Ahmed jël ko mayewaat ko ma jël sama xaalis def sama poche parce que man mhm. politiquement te loolu plusieurs fois Ahmed wërsëgam da koy dikkal mu dem maye ko. Mhm. Mhm. mun na partager ak ñoom dëkk ba. xam dëkk ba xam koññee xam mbokk ya te cest à yoon bu mel noonu. xam seen i jafe-jafe dañ ko war a jàngal ndaw ñi. ñu xam ni da am gëm-gëm. am détermination. am motivation. bañ ni yàcc ni lii dinaa ko tabax ëllëg. Mm-hmm. mais dina jox beneen leçon Sénégalais yi ci nii. Mm-hmm. bañ a bokk gis-gis ci wàllu.